dafa bàyyi woon ay yitteem yépp bàyyi théâtre bàyyi lépp te ku xam Rita xam ne sëykat la ku dem ba bàyyi ay beewam bàyyi ay théâtre am dem sëy ñag yi ñoo nekk ay doomu xaraam Rita ci boppam jigéen ju baax la te ku xam Rita xam ne amoon na ay beew yu baax am ay terangaam yor ay otom yor léppam Rita nag jogo na fi nga xamante si nii moom mooy France esa bii nii mi ngi noonu euh, ci Modou Gueye héritage di def ay shooting mais daal li ma leen mën a xamal ba xamal leen ko mooy Rita sëy moo ko taxoon a jóg yaa ngi dégg sëy moo ko taxoon a jóg ak fulla mais ñag yi ñoom ñoo nekk doomu xaraam sëy bi man maa leen koy wax c'est confirmé jot naa ko téléphone c'est confirmé que sëy bi tas na moom nag site internet yaa ngi koy woo télé yaa ngi koy woo euh, lépp a ngi koy woo mais demul ci benn site demul ci benn télé nekkul ci ay doomu xaram lanu ñag yi dun ay nit ñu baax se seeg a gën a bon sénégalais yi xas Rita nag wala di yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci Rita booy boo ngeen arrêté ko te xam ne Rita say moo ko taxoon a jóg moo ko taxoon a jóg mu bàyyi itam yëpp bàyyi théâtre bàyyi yëpp jógee dëkk ak dëkk dem say nit ku baax la kon bu ngeen xamul dee leen maandu dee leen maandu dee leen maandu dee leen maandu te ngeen ko yàlla defal ko jàmm. ñu euh, rek indi leen li gën a fës ci net bi ak ki nga xam ne rek mooy Fana euh, divulgue une vidéo compromettante euh, de Rita Ora maanaam nag Fana nekk jëkkër ci Rita Ora Rita Ora nag ñu doon ko woowee Maguette Fall mu mel ni rek ay vidéo daal na rek tàbbee ca moom te ka génne nag du kenn ku dul jëkkëram jooju wala sax ex jëkkëram jooju di Fana mu mel ni rek génnoon ay jamono. jamono ci ginnaaw moom Fana ci ab euh, sortie médiatique euh, di wax ni rek euh, ñoom ñaar dañoo laaj daal di divorcé mais ca noonu dégguñu benn yoonu kat di Rita mu génn addu ca la ne mel tey nag moom Fana dellu si waat na ci ay vidéo di wax rek ni Rita da koy liggéey maanaam da koy mara marabouté loolee nag nekkoon ab histoire ca ginnaaw boo xam ni moom Fana doon na ko wax mais mu mel nii kenn fullaalu ko woon mais nag tey dafa ñëw moom Fana indi ay preuve ñu gis ni publier na ko ci page TikTok am waaye it ci page Instagram am di wane rek ni uh, Rita nu muy utiliser uh, boobule butéel ñu daal di gis ni yenn artistes yi nag daal di nañu fare uh, ci fan ñeneen ña ca des daal di fare ci ki nga xam ne mooy Rita gis nañu sax Faynara daal di def ab publication ci page Instagram am di wax rek ni Rita dafa daal di dund lu métti ci biir néegu sëyam ba bu ko dund toogoon sax di ko wax ki nga xam ne rek mooy fana dina génn daal di ko baalu ak waaye it di wax rek nekk ni képp kuy jigéen di sëy di nga soxla ay xarfa xuufa na nga xamante ni rek moom la bërekat ba di ko soxlaa ca biir lamb ja mu mel ni rek fay na la loolee la yëkkati teg ko ci kaw ki nga xam ne rek mooy Rita de Maguette Fall mu mel ni rek ñu nit am nañu droit daal di ci joxe suñu ab xalaat ca lu ni mel waaye jigéen boo xam ne rek day sëy am na droit daal di rek noot jëkkëram ngir rek mu gën ko bëgg bu fekkee preuve yooyu nga xam ne rek fan daal dina ko génnee jëmale ko ci xitaa dëgg la ñun nag jàpp nañ ni war na mën a nekk parce que it Sénégal la ñu nekk te it ay doomu sénégalais lañ xibaar bi aloo dakaar xëyee tey mboolem yéenekaay yi xëyi xëyee ko ba noppi fësal ko seen xët bu njëkk di ñaar ji nga xam ni néegu sëy doxoon na seen diggante kenn ki di woo ci turu Rita Ora am sax ñu koy woowee kii di Maguette Fall ku góor ki di woo turu euh, fenn ñoom ñaar nag ginnaaw ba ñu sëyee daal di nañ divorcé seen divorcé boobee nag juróon na fi coow ci mim réew laataa ñuy àggali vidéo bi ñu ngi lay ñaan bu dee gan ko ci page bi bësal abonné laal cloche notification ndax mboole vidéo bu ñu dugal nga mën jot fii ci Allo Dakar mbokk yi vidéo bi moo tàmbalee def viral ku ci nekk di ci àddu ginnaaw ba fenn daal di génnee preuve laata loolu fan yéen bi passé gisoon nañ ko moom mi di fenn doon wax ci mbirum néegu sëyam lim ci noonu dund ñu bëri bàyyiwuñ kon xel ginnaaw ba ñu daal di àndee ak ki nga xamante ne moom moo di Rita naan ko lu ñuy dund ci néegu sëyam dafa metti am sax ñuy wax ni doon nañ ko dóor maanaam violence aux femmes doon na ko dund ci biir néegu sëyam tey ji nag ki nga xamante ne moom di fenn indi na ay preuve fësal ko ci compte tiktokam ba ci compte instagram mooy vidéo bi ngeen di gis di wax ni kii di Rita Ora da ko doon liggéey ak di ko teg lu méttee méttee tax na askanu senegal góor ak jigéen mag ak ndaw ñu bëri di ko waxtaanee li ñuy waxtaanee jamono bile moom mooy ndax lii kaw teef la wala ndax lii mbir moo xamante ne kenn ku ci nekk war na ko mën a aggraver ndax bu ñu gisee lu mel nii jàpp nañu ne à chaque fois képp kuy jigéen dinga daldi dem ci sëriñ ngir sa néegu sëy mën a daal am bànneex wala sa néegu sëy gën a dëgër amaana fi ñu ko doon garaawale moom moo di fenn feebar wala fenn leneen dal ko wala lu garaaw dal ko tey jii képp kuy jigéen ngaan nga yàlla sa néegu say am jàmm kon tey vidéo bi képp ko gis garaawaloo ko wala képp ko gis jàppoo ni lu garaaw la ndax tey jii nii kenn ku ci nekk boo néegu sa néegu say léeg-léeg du ñàkk di nga dem si ñaankat mu ñaanal la li nga xamante ne moom moo di jàmm wala sëy bi gën a dëgër ñu bëri jàpp nañu ni vidéo bi tey jii Rita Ora bu ko doon def wala Rita Ora tey jii bu déplacé dem ci sëriñ ngir sëriñ bi gën koo ñaanal ci néegu sëy la waaye mbokk yi euh, bu ñu fàtte ne à chaque fois que ni gis nga jigéen bu bëggee daf koy lu nekk ñëwuñu fi ngir défendre kii di Rita Ora ñëwuñu fi ngir dal ci kaw euh, fenn mais tey jii wax balu feetal la bu xësee ba génn rek génn na tey amaana jigéen boo ko téewee ni nga ko war a téewee du génn wala du dem feneen ak feneen di fa jébaane wala di la wax nga da ko def lii jigéen lim dund ci néegu sëy rek loolu lay nettali jigéen bu la bëggee tey jii nii boo ko tegee lu mu métti métti bu dawee rek daa fekk ne li ko teg moo métti tey buñ gis image bi rek ñu bëgg justifier wala ñu bëgg juger kii di Rita Ora ne da ko noonu liggéey non tey jii mën na ko def parce que lan kii di fenn daf ko ñàkk may jàmm mu dem ci sëriñ ngir mu ñaanal ko jàmm loolu moom lislaam daganal la ko waaw tey jii sa néegu say am problème nga ne leen laa war a def moom moo di dem ci sëriñ ngir mu defal ma jàmm loolu lislaam daganal na ko quant à leneen ak leneen nag xaw ma mais jàmm ak salaam moom ñëpp koy ñaan te da ngay dégg ñu naan lu dul jàmm jàmm ko gën kon tey bu fekkee jàmm la woon moo taxoon mu def lii lislaam daganal na ko bu fekkee tey di fenn daf koy teg lu metti mu bëgg lu metti loolu deñ ba tey dagan na ndax tey kenn ñaanu yàlla nekk ci néegu sëy di ci dund lu méttee méttee kon tey fenn lii mu génne defu ko ngir yaaxal Rita Ora tey Rita mën na am ay preuve génnewu ko mu toog moom mu ñëw génne ay vidéo yoo xamante ne tey jii kenn ku ci nekk boo ko gisee sa mën naa àgg fu sore sore lii moo nekkoon jàngat bi kenn ku ci nekk mën na wax sa xalaat jaare la ko ci commentaire yi la fii ci Allo Dakar bu leen fàtte di aimé vidéo bi daw partagé saa su nekk bés bu nekk nii lay demee fii ci Allo Dakar analyse yu wóor yi analyse baax yi fii rek lay amee leen di abonné ak a partagé suñu ay vidéo saa su nekk bés bu nekk Allo Dakar di leen jox dig daje ba beneen yoon lii moo nekkoon première partie bi deuxième partie bi dina ñëw léegi-léegi. Le lendemain, elle est partie voir son, son mari. Et le lendemain encore, j'étais avec elle. Mmh. Deux. Ouais. Trois. Mmh. Vie kese. Mmh. Quatre. après nga galanteeku nii. nga boole café bi daal. d'accord dégg nga. potu Nescafé bu 900. nga ubbi ko dindi café bi sotti ko. soxla woo café bi quoi. Mhm. mais ku bëri pot bi nga ut benn pont rek wala rab lu mhm. pontal la ko mhm. suñ ko bëttee ay bët bët. waaw sotti si lem. lem bi nga teg si xal. lem bi day daw dugg si biir pot bi. après soo ubbee pot nga jël lem bi. Mm-hmm. def ko di salon jël saafara bi tokkal ko si diw ko sa kanam seet si jëkkër